mooy comme fi docteur bi commencé xaw ma fi mujje ndax nee na bu ngeen bëggee da ngeen di fas yéene buñ xamati association centre diw ak association centre diw ndax El Hadji Amidou Diallo ko loolu la doon xeex soo ma saana wax mun la man xaw ma association xaw ma centre malade laa xam tey jii dañ see toll foo xam ne ñun malade yi fokk ñu jéem a defu say àndandoo doon benn ndax lii ñu gis kat dañuy yóbbu foo xam ne te ay sénégalais lañ pire diir li war sénégalais yëpp war na li ñëpp yi jëf ñu di ko jëf sunuy biiri kër mais nag dafa doon loo xam ne tey dañoo toll foo xam ne état di Sénégal keroog ba mu nee jël nañu en charge ba tey du nu jëluñu en charge waaye moom ba mu nee jël nañu en charge ba tey képp ku ñu doon dimbali toog nga sa kër te moom lim nu jëlal en charge moom xam na ko nun xam nañ ko muy lan machine. li si des lépp dara bi ngay lal ci lal bi sax yaa koy defal sa bopp tey boroom kër lañ léegi li ñu wax OPO yi seer na nañ ñu ci dimbali fistil tey jii waratula doon loo xam ni pour nit am fistule day jóge eh, Touba dem dakaar nit jóge Ndar dem dakaar pour fistule non médecine avancé na tey cardiovasculaire fa mu nekk ñaata docteur fa nekk hôpital boo dem am na bloc opératoire kon war nañ ko mën a décentraliser ba tey fu ci malaad nekk jaratul ngay ñëw di xaaju guddi di rang hôpital Fann quatre heures di matin boo ñëwee fekk nu par te mën nga faa toog ba dix heures doo gis médecin da nga jóge ci raison loolu metti na kon nañ ko décentraliser ñuy fekk malade yi fañ nekk ndax ñun loolu rek la ñuy wër te parce que liñ bëgg kenn mën ñu koo defal ku dul état état rek ñu mën a dimbali naam lim def duñ ko xeeb tey boo xoolee salle bii ñuy waxee tey ñaata nit a toog jalisuñ te war a dem dugg jalise mais xoolal tey fii ñaata unité fi nekk état nanu dimbali ci personnel fii machine yi fi nekk dox ndax ñi si biti te war a ñëw jalise seen bakkan xacce ñu def ko te yàlla rek tax ndax nee naa leen lii day feebar boo xam ne ku mënta jëf te yàlla tax doo ci def parce que du feebar buy tricher moom benn kaddu la am da ngay siy def rek dem. dul xalaat la da danaan la boo demoon ci privé bi ginnaaw suñu borom degal na nag président ak politique mu ngi koy yaatal tey ba centre yi yaatu nañ dimbali ci personnel bi nañ ñu dimbali ci personnel bi fii tey jii li ma fi gis yaakaar naa gis naa vingt vingt neuf machine yoo xam ni dawuñu vingt neuf machines buñ xëyee jël vint neuf personnes deuxième heure vingt neuf personnes troisième heure vingt neuf personnes c'est combien. ñaata nit fii tey boo doon xool liste datant bi bu buñ la ko wanoon sa yaram daw te foo dem looloo fa nekk ñun nag li tax ñuy wër ak tey jii li tax a jóg mooy dañ ne ñun ay malade lañ duñu waxit lu dul njariñul malade buñ dee waxit malade yi lañuy waxal ak ñi ñuy faj mais daal liñ bëggatut mooy bëgg topp ci loo xam ne boo waxee ñu ne ñu yéen mënu leen dara taxaw leen lu tax mënuñu dara ay nit lan tey am na ñu fi nekk chauffeur nga yaa ngi liggéey sa moroom noonu keneen noonu jigéen ñu fi nekk tey ñu ngi nii bari na ñoo xam ne tey jii boo leen joxoon ne restaurant ñu doxal ko tey jii ko si dem ci këram ma nga yekk ak togg ko yekk yor seen njël waa léegi nag ñu bëgg ñoo busse si mënu leen dara mais mën nañ dara danoo feebar comme tout le monde ñu ngi ñuy faj ñu ngi faju mel na nit ñëpp léegi daal liñ bëgg mooy képp koo xam da ngay jëf te yàlla tax tey jëf ci jalis gox boo ci nekk sant jalis ba fa nekk boo demee am na ku ko jiite wala am na ñu ko jiite boo ñëwee laaj leen loo fay def te yàlla tax boo ko tegee seen loxo ñoom ñu jariñoo ko mais bu nu jaaralate ci ñenn nan nu ko dimbalee loolu yomb na fi moom dan ko koy ñaan moom président Macky Sall fii nanu dimbali balaa at mee jeex vingt-neuf machines yëpp dox ndax personnel jërëjëf sart yi metti na te man sax fi dëkk sama kër a ngi fi ak sama waa waaye nag damay tukki France laa nekk waaye yoon wu may ñëwee fii bu ma fayul du ma def jalis danaa am problème Afrique danaa am problème fii bëgg fee ñëw te du ma mën a ñëw ndax pay gi mooy tax du ma mën a ñëw tubaab bi sax xëy na dara warunu ci ñoom waaye bala ngaa ñëw ah ngaa ñëw fii dañ lay laaj lettre bu wane ne am nga place ndax na jeñ am bëgguñu nga ñëw fii di fi trompé di fi di fi tromlanke moo tax bala ñu laa ñëw bala ngaa ñëw dañ laaj doc euh, lettre bu jóge ci docteur bi hmm, ak directeur bi ñu wane ne yow am nga place jëkk soo ko mën a ñëw bu ko dee nag ñoom ñooy jël a sart bi waaye sart boobu ñuy jël ñoom nangu nañ koo fay waaye fii ñun noonu nanguwuloo dimbali ci dara ndax ñun bu ñëwee fii. en tant que fayuñu en tant que fayuñu duñ mën a def jalis ndax tubaab bi lim lay laaj wala mu laa mën a rembourser dara dangay ngay fay ba pare andil ko facture bi waaye nga ñëw fii bëgg fee def 3 mois sa jabar ne fi doom ne fi yëpp ne fi nga bëgg fee ñëw def ay une semaine xam nga kooku jaaduwut. taa bi Sénégal li ma bëgg mu dimbali immigré yi. wàññi leen li ñuy fay ndax bu fi dool boo ñëwee benn jalis boo def cinquante mille ngay fay nga ñëw bëgg fee def ay trois mois ci borom kër nga war fa fay ay trois millions et quelque wala nga fay bi ay boo fi dee def ay deux mois di fay ay ay ay un million sept cent mille loolu la ñu ci dimbali waaye fal nu ko ba dem beeg dikk bi yomb waaw ñi nga xam ne sama mbokk yi nga xam ñoo fi nekk fi laa leen di fekk sama digg yàlla wax garab garab yi yenn yi da leen di të garab yi da leen di të transport da lépp da leen di të loolu yi nañ leen ci jàppale ndax boroomi kër lañ te néew lañ doole te kenn ku ne la la war ci sa kër xam nga ko sama bopp laa koy seet. état la ñuy waxal ndax gis nañ ne ndimbal bàyyikoo nañu fu ne waaye xam nañ ne ñun li ñu àttan état moo ko man ndax bu ñuy wax ndimbal Serigne Mountakha mi jiite dëkk bi moo ñu njëkk a ndax centre bi bu taxawee ci aw turam la taxawee ci dooleem la taxawee ku ñuy wax président Moustapha Diakhaté mi ngi ñuy wutali ndimbal fu man di toll. bu dégg bëccëg ak boole volonté yi nga xam ne bi yëpp ñu ngi yëkkat seen di ko def ci ñun. yëg nañ ko te gis nañ ko waaye jalis moo neexut te laajal moo neexut te yalwaanal état rek moo ko attan Cissé Sarr wax na ko léegi ñun bi ñuy def jalis li ñu bëgg mooy état bi di ci doxal ay jéego yu gën a avancé tuuti tuuti waaye bu ñu la jalis gratuite la rek ba léegi ah rombut rombut machine bi ak laal bi soo ci paree rek pare nga ci yaay defal sa bopp analyse yaay jëlal sa bopp piqûre yaay defal sa bopp ay rajo lépp yow yaa koy defal sa bopp te loolu diis na ci malade bi malade bi damaa wax ne paas bi kër ga rek seer na ci moom. kon paracétamol donc su ko waroon di jënd seer na ci moom maa wax ne fistule bi nga xam ne bi dañuy dem ba dakaar Fann di ko fa defaree jee fistule bii dañoo wagg ñu koy defaree ci Sénégal gépp ndax dakaar donc amul amul bloc opération ña nekk Dakar nañu fekki malade yi leen defal opération ndax ñetti yoon ba juróom yoon da ko dem hôpital Fann te lu tax nga am fistule da nga toog un an wala un an yi demi tax nga am fistule loolu metti na bëgg nañ tamit ñu dimbali ñu ci li nga xamante ni moom moom moo nekk maanaam euh, transplantation bi def ndax gis nañ ne loolu ñu ko dégg ci réew tubaab yi waaye léegi yegg si na Afrique kon Sénégal waru cee des ginnaaw. fii ñu nekk ci centre hôpital Matlaboul Fawzeyni am nañ lu ma 35 machines waaye dafa mel ne fi ne nii 12 kii 12 machines ñooy doxagul lépp nag xeebunu ko ndax ñu ngi jóge ci 7 machines ñëw ci 37 36 35 machines gannaaw douze yaa ngi dox yëg naa ne fan yi ñu ngi fas yéene am ñu ñu jël. pour ñu ñëw renforcer ñi fi nekkoon pour ñu ubbi li yi des salle ji des ñu ñu ñu ñu ñu mën a dox ndimbal la ñuy sàkku ndimbal nag buñ ko sàkkoo ku ko man ci ndimbalu Jalise état bi rek ñoo ko man kenn kenn mënu ko ndax fi ne am na ay bonne volonté yuy def waaye bu dañuy taxaw ndax mënalu ñu lépp ñuy jàppale ñuy jàppale dañuy jàppale fu ñu toll waaye xam naa ne yoo xam ne duñ duñ mën a. ndax la Jalise est gratuite mais boo ko déggee mbokk mu la bëggoon dimbali sax dootu dimbali daan jàng Jalise kenn du fay dërëm mbokk mu la bëgg dimbali dootu la dimbali. nga xam ne say bokk dañ lay seetaan say xarit seetaan say am jàmm seetaan la ndax def nañ lañ mënoon taxaw dañ léegi taxaw ñu ngi taxaw rek bay ak sa bopp dañ des jël bu bëree bëri bu bëri lay jël bu bëri bu dee boo xoolee bu naan la gaz est gratuite maanaam boo nekk ci machine bi boobu moom c'est gratuit mais su fekkee da ngaa da ngaa da ngaa dem fee ñu defal analyse wala ñu defal la rajo wala ñu defal la kii yooyu ordonnance yi ngay jënd lu lépp yaa yaa ko jënd sa xaalis boo amee da ngay gën ba nga xam ne da ngay toog rek moo fi nekk kon ñi ñi sàkku nag ndimbal ci ñëpp rek ñi sàkku ndimbal ci président de la république di sàkku ndimbal sax ci première dame suñ mënee jàppale nañu jàppale ñun ñun ñun mag évangélisé yi Sénégal sol nañ lool sol nañ lool ça fait des années ñu di ko def man def naa ko par dix ans ci ren daanaka am nañu ñu ma doon dimbali ba bàyyi nañ bu yàgg ba bëggoon nag kenn ku nekk nga wax ki sa xalaat rek ndax ñëpp bokk lépp kon na ci ñëpp jàpp na ñëpp wax seen xalaat xam naa ne nag fës lii moom man am naa benn mais voie biir la am léegi nii yëpp yàqu bi yàqu na bi yàqu na bi yàqu na biir la am kon nag ñu def attention ci fës lii tamit bi ñuy bi ñuy pigee ñu def ci attention loolu sama mbokk docteur yi laa koy wax jàmbaar lañu lool nag wax dëgg yàlla. ci jalissement yëpp la la la concerné mooy sama classe gi dañoo am jafe ci ñëw lool ndax man bu muy ñëw bu ne. sama doom ji tey jii euh, day day day day jàng métier nga waroon naa xëy liggéey waaye liggéeyut am naa ñeneen ñoo xam ne tim dañuy jàng te la leen yàqal seen jàng ci laa bokk ndax koo xam ne yow mënoo yóbbu sa bopp fenn booy ànd ak nit tardel nga ko tardeel sa bopp te bu fekkoon ñun ñu lañ du am benn problème kon nag loolu bëgg nañu ku ñu ci jàppale bu baax a baax a baax ndax dañu ay ay handicap yoo xam ni luñ def lu ne dañu koo mënal luñ man lu ne dañu koo mënal kon nag bu sañoon ñu jàppale ci bu baax a baax ba suñuy ñëw jàppandi loolu mooy problème transport bi wax dëgg li ñu wax ci bikir yi ak li ñu wax ci ci ci ordonnance bi loolu moom jërul ma ci yellu ndax daanaka wax ji mat na ferenkulaayu na ca wax bu ferenkulaayu rek loo ci dene loo ci doon leen doon ko yàq man dal côté bii nga xam ne mooy sama côté ak képp ku nekk jëlis ku mel ni man loola concerné la kon nag bu sañoon ngeen jàppale ñu ci ba ba fon fan bëgg àgg ñu àgg ci ak jàmm thank you